Assalamu alaikum wa rahmatullah. artiste chanteur mais surtout sénégalais. Je viens encore une fois inviter mon peuple, les aspirants au pouvoir, mais surtout nos gouvernants, à plus d'attention à nos valeurs et à rester fidèles au fondement de notre identité nationale. Gouverner un peuple, c'est de l'accompagner vers la réussite. Et ceci est indispensable d'être loin de la corruption, de la violence et des inégalités de traitement. Ne sacrifions pas nos enfants patriotes, conscients de leur devoir de servir et soucieux de l'intérêt général. Donnons-nous la chance de réussir. Ayons plus de considération et d'attention envers les générations futures. Donnons la chance à notre peuple de se bâtir n'avez pas le droit de je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je suis à vos côtés pour résister ensemble, pacifiquement, pour la démocratie, pour l'union des cœurs et des esprits, pour la paix, pour l'intégrité et la stabilité. bu ñu sañoon ñun seen oto yi dañu romb. Mhm. te bu ñu leen bàyyee pour ngeen romb parce que xamuñ ban situation ngeen di dem fekk. Mhm. comprendre te yéen seen devoir du pour gaañ du mhm. pour gaañ yaa ngi comprendre mais dañ toll ci situation boo xam ne lu xew bi ñoo na lu xew Ziguinchor dégg nañ ko suñuy frères ñoo fa nekk ñuy dee te ñun tey len leen mënoon def pour protéger leen parce que tey. doo nay ay malfaiteur mais président bi moo dem yóbbu ñu mais ñu leen di xoolee comme ay malfaiteur yeneen rey yeneen ñi ngeen rey fee suñuy ràq ngeen rey donc buñ nee bu seen arme yi bul romb du maanaam dañ ñun arme doyuñ ko dara de mais bañ ngeen dem ngeen gaañ leen donc boo leen eggee Bignona wala Ziguinchor même boo leen ko defoon ngir ñun def ko ngir yàlla ngeen dawal yërmande ngeen xam ne ñi ngeen di jàngaarloo seen i rakk lañ ngeen dawal yërmande parce que sinon mun nañ gaañante ñun fii bu ñu ñu gaañante te loolu du c'est mhm. waa tàccu ko ils sont courant ay xaaral